ci ñàkk ñu bari waaye di nga ci am ñu bari ca boobu ba tey ñu ngi la gis nga toog di defar ba mu baax loo defar gumba mi ci yoof yàlla na ci yàlla ak Serigne Fallou Mbacke def xéewal man boole nga maag ku ne ba boole maag sa Serigne bu baax baax soxna Baali sama yaay nga xam ne boo ne Fatou Gueye ma soxna Baali mu njëla taar Diouf boole nga maag ku ne na yàlla jàmm soxna Baali bu may ci sa loxo la koy teg nga dina ko jox yal na sa jàmm yàgg lii ma yor danga maa jox groupe njëkk dama laa jox un million nga teg un million njëkk faatu moo Adama benn baay mu indi fi deux millions ak paliru or ak jaaro jama ak matériel nga jox ma quatre millions dolliwaat waaw waaw. deux millions. deux millions yi. yaa groupe njëkk la. man sama ñaari million ñaari million nga ca teg. wàcc na. Hmm. macha allah. mënoon nga ne ren koo dajal na ko koo daggut dàllam na ko ren. yàlla nga ñàkk ci sa bés doom bi yàlla na ko yàlla rek delloo. ci bu la ko delloo yàlla boo ci jënd ordonnance. lu rafet nekk rafet. ñaar fukki junni. Euh, ya yaa ngi may dégg Fatou. yow rek laay dégg ñaar fukki junni jokkalante. am am sa xaalis. ñaar fukki junni jokkalante. xale yi ñu àndal. dañ leen di defaral mais duñ leen yàqal. mën nañu nas seen nas ñu def leen nangam. Mm. waaye ñu ngi yàgg dajeeg yéen ci xam seen valeur. dinañ leen jox ba ngeen kontaan un million. benn million. one brick. Ah, deux millions. deux millions. añu njëkk. añu njëkk. cinq cent mille. cinq cent muy deux millions cent. te jëpp yaa ngi dégg. deux millions cinq cent alma trois millions millions boobu paas la dàq ñu leen mhm. paas guro ak ñu wana foofa toj dàq ñu leen waaw